fi may ñëw mooy ci Sonatel dama jàpp ne ñi nga xamante ne privatisé privatisation bu njëkk bi ñoom ñoo ko defoon ñooñu moom dama jàpp ne des leen waroon na topp ci yoon ndax nit mënu bokk ci gouvernement proposé ñu def privatisation ba pare ñooñu wàññee ko am ay action ci biir loolu war sa askan la ndax conflit d'intérêt la ca loolu dama jàpp ne waroon nañ koo seetaat ubbiwaat si enquete xoolaat ko ndax leerul woon ndax tey jii boo jëlee lu mel ni Sonatel En 2018 nous avons 1022 milliards Nous la gagné 1022 milliards qui juróomi réew yi nga Afrique de l'Ouest Nous avons 1022 milliards En 2019 premier euh, semestre nous avons ngi am 540 milliards 540 milliards yoo xam le xoolee askanu Sénégal gisuñ duñ ci gis seen bopp lu may ay lañ coono yi ñu ciy jëlee mooy roaming bi CEDEAO waxoon ne nañ ko arrêté arrêté wuñ dara defal ñu ay dalal ton yoo xamante ne sañun koo bañ ñu ñuy dagg suñu xaalis ca mënuñ ci dara xamuñu askan bi xamuñu lu ñuy fay dangay woote rek ba mu jàgg sa xaalis jeex te amul foo ko mën a jooytoo ngay nekk foo xam ne doo am réso bëgg a woote di sonn ci amoo foo ko jooytoo ci jamono boo xamante ni communes yi la leen fa war ñu war koo fay communes yi duñ leen jox dara xanaa di leen dawloo ci jamono boo xam ne Orange Money ci boppam du fay ay fiscalité am état du Sénégal wàññeekuwaat tey jii nii boo bu fekkente ne da nga yor Orange Money yow ma fay liggéeyee ñu jox la ko mun nga liggéey cinquante million pour nga am 500 000 francs yombul ci man nga jaay 50 millions liggéeyal leen ko ci yow yow doo ci am yow 500 000 ci jamono boo xam ne Sénégal askan bi sonn nañ ndax lan da ngay gis koo xam ne day jàmbaare ñëw créer ab société lu mel ni pro promobile tey ku mel ni mbàkki yu fay moom koo xamante ne wane na résultat am ndax barki démb rek gis ngeen jumaa ju réy ji nga xam ne muy Masalikul Jinaan

ñu xeex sénégalais bi nga xamante ne moom dafa dafa taxawal loo xamante pour njëriñu askan bi la dëkk ci Sénégal juddoo fi màggee fi léppam di Sénégal ñu xeex ko bosam ba léegi mënta fexee ba dox loolu nag la muy indi rek mooy la nga xamante ne Jean-Jacques Rousseau waxoon na ko nee na quand un peuple ne défend plus ses libertés et droit droits il devient mûr pour les l'esclavage loolu nag tey foofu la ñuy bëgg a àgg ndax àgg nañ foo xamante ne Sénégal